Mouhamadou Lamine Seck maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay bu baax. Mouhamadou Lamine Seck nga jiite association nationale des conducteurs moto euh, Cak Cak. tey jii waaw lan mooy seeni jafe-jafe euh, si Yaatal. waaw suñuy jafe-jafe mooy comme ni ma ko waxee léegi euh, mooy nekkuñu en règle maanaam ñu nekkuñu si yoon donc na ñàkk nekk ci yoon bi mooy moto bi amul kayit amuloo carte grise kenn mënu la xàmmee amuloo permis de conduire waroo dawal ñeen ñi mën nañu am permis de conduire am carte grise bi des fois ñu yor moto bu mag boo xam ne dañuy laajte permis dañuy laajte permis moto donc c'est trois difficultés différentes yoo xam ne ne moom lañ or moto yi motocycle yi di di di jànkonteel ci tali bi donc policier fu mu la arrêté rek mën na la mën na la door euh, amende parce que nekkuloo en règle mm-hmm. waaw léegi nag ñu ngi naan dañ doon ñaan état pour mu dimbali ñi nga xam ne ne amuñu carte grise ñu foog subventionné quelque part carte grise bu moitié pour moto yëpp mën a nekk a papier en règle ñu xam kii moom moom moto bi kii moom moom moto bi hmm. parce que dafa am ñu ñu rax aussi muy sàcc yeeg agresseurs yi ay moto lañ yor comme ñun léegi nag ñooñu pour ñu mën a ràññee ñii ñoo yor moto beeg ñii foog ñu nekk en règle foog ñu dimbali ñu ñu am ay kayit ku si nekk sa moto matriculation bi nga xam ne diw moom moom moto bi ñi nga xamante ne am nañ ay moto pour def ñaaw ci yoon léegi nag ñi nga xamante ne tamit accident yi dañuy dawal ci tali amuñu permis de conduire parce que amuñu formation bu baax ñu mm-hmm. a jaar rek ñu jaar fa mm-hmm. mais duñ ko teg ci code de la route parce que amuñu permis de conduire amuñu formation bu leen wan code de la route ñii ak nga war a doxee ñii ak nga war a waaw loolu loolu mooy premier point bi ñu doon wax ci kii léegi lan moo tax mu jafe ngeen mën a am ay permis de de conduire ngee nekk en règle mën a liggéey mhm. normalement te du ñu leen laaj xaalis ci kaw tali bi lan moo tax loolu mënul nekk loolu war a mën na nekk la lu war a mën na nekk la mooy comme ni ma ko waxee rek fekkente ne ni moto yëpp dimbali nañ ñu am carte grise ñu amul permis am permis boo amee permis am carte grise assurance da ngay dem dagg boobaa di nga nekk en règle hmm. si kuy def nag si kuy cag-cag boo xam ne livraison rek ngay def livraison de bagage ngay def ay ay ay ay mm. mais nag pas kuy livre nit nit moom ku koy yóbbu ku nekk rek moom yaa ngi dugg si beneen domaine te ñi koy def dèjà amuñu xam-xam mm-hmm. amuñu euh, expérience bu ñu war a dawee ci tali parce que amuñu jànguñu code de la route donc bu ñu accidenté dañu loraare ci ci ñi yëpp lor seen bopp te man je pense que ni nit ñi di yëg si moto yi di daw di dem ay yenn yenn ñoom ñoo war a ñëkk a yedd seen bopp te xam ne wóorul mm-hmm. ndax ku si daanu rek sa sa sa àdduna mën na ko jaaree yàqu donc loolu lu ñu war a seetaat la. yow d'accord benn yoon ci moto yi def benn yoon moto yi def transport de personne beeg yooyu la. rek mooy livraison ay bagages lu ay colis yaakaar naa loolu daal moom mën ko yow booy jël risque jël risque yow kese yow mi koy entamé. mais bu ci boole doomu jàmbur boo xam ne xamoo fu ñu jubee hmm. ndax bakkan yor dèjà ci accident yi dafa bari. mais Mouhamed bari bi moto yi bari à fi ñu tool nii dafa jéggi dayo parce que ñu nekkoon si région yi ñëw nañ gis nañu hmm. nekkoon ci sous région bi ñëw nañ ñëw nañ waaw loolu moo la moo la moo lay rax bi dafa am ñu ñu rax waaw ñooñu rax nañu nag kon bari bi mu dëru yi bari du yéen dafa du du waa Dakaaru rek xam naa ne bu doon dëkk bi rek la hmm. du du du demee nii mais demal rond yi nga xool étranger fees nañ fa dell foo tourner rond yi ñoom ñooy taxaw di squatter. Mhm. parce que ñoom ma yaakaar naa mhm. mhm. a xam ne dañ leen def càq di si gis seen bopp loolu mi ngi commencé yàqal parce que gis-gis bi moo rafetul. gis gis bu rafetul nag dañuy jël ñëpp boole leen si benn mbuus waaye aussi respecté wu leen yéen borom dëru yi code de la route sens bu ne ngeen di génnee yokku ngeen insécurité routière bi accident yeeg ñoom seen mooy li ma mooy mooy li may waxaat rek mooy ñawaat rek boo jàngul code de la route xam boo jàngul code de la route mën a dawal en moto bi mën foog ni yow mën ngaa dawal mhm. mën nga xam code de la bokkul moto bi moom mën nga ko def loola neex mën nga ko tooj mën nga ko dawal mën nga si def loola neex ba parce que mën nga ko mhm. mais code lu mu wax si tali bi miinoo ko xamoo ko xamoo panneau bii lan lay jëriñ xamoo bande bande yi lan lay lan lay signifier mm-hmm. ah panneau sens interdit mënoo koo lire panneau stop mënoo marqué stop da ngay daw rek teel teel di def jël risque léegi moto yi ak moto yi ñooy créé accident mm-hmm. la plupart moto yi ak moto yi ñooy créé man mii damay dawal moto da ngay gis ku jógee fële ci àll bi ñëw yow foo xajul moom mu ne xaj na fa pour romb la yow boo deful naa mu daaneel la nga def dem yoonam mm-hmm. kooku ñaaka xam moo tax muy def loolu donc loolu lu ñu war a régulariser la déjà ko amul permis rek waroo dawal. Mhm. waroo dawal ci tali bi parce que boo ci mbëkkee nit bu ci faatoo kaso nga jëm parce que commissaire centrale bi nii moom kafewul ci loolu de. Mhm. ngay dawal amoo assurance ba def accident boo ñëwee dalay denc ci giri bi directement amul sax négocier waxuma la nag nga mbëkkati nit amoo pay permis moom da lay da lay defeere directement ci kaso bi. amul ci assentiment donc nag ñi ñuy dawal amuñu permis wallahi rasuuli man dama leen ñaan nañ def nànk parce que mënuñu xëy rek tere leen ko parce que jot nañoo xam ñam affaire bi te lii franchement du liggéey boo xamante ne liggéey buy continuer la li liggéey boo xam ne jàppandi la jàppandi dong moo moo ci taxoon jug ñenn ñi man bi ma koy tàmbalee di def jàppande moom si dugaloon jàppandi nekk di liggéey si ay société société ba arrêté ma ma nekk ci gum ci en am naa ay client parce que nit ki da ngay correct gis nga am na nooy mel mm. boo correcté lu nekk mën nga ko ci am ay nit yi ngay bu xamoo ñan lañu la mm-hmm. am naa ci ay plusieurs yoo xam ne ñi ne dañ may gis gis la correct wóolu la confiance bi dugg ñu lay jox yenn somme yi ay dix millions ngay dem di yóbbu di indi ñu dénk la lu lu rëy ne la am liggéeyal du liggéey bu bon naa mm-hmm. mën nga ci am lu nekk nag mais si kaw nga teg ko ci yoon nga correct benn yaa ngi dégg nga jàpp ba nga bañ ko jàpp nag liggéey buy continuer waaw boo ci nekkee yàlla mën na la booleeg ay nit yu baax nga am ci li mu am nga génn nga dem sa nga nekk si leneen. Mm. waaw ngeen fan ngeen amal euh, manifestation ci vingt cinq août bi. Euh, mhm. fan ngeen koy amalee ak euh, lan moo tax ngeen bëgg ko amal. waaw gars yi dox ñaxtu rek gars yi dañu bëgg dox ñaxtu te xamaguma lieu bi nag mais dinaa ko gëstuwaat xool fan la gars yi gën tànn pour def ko. léegi nag bu ñu kiiwee dinaa xa dinaa naa leen wax lu leer incha allah rabi comme ça ñu kii ko parce que dañoo bëgg rek état dimbali ñu buy dimbali mu dimbali ñëpp bañ a dimbali benn pàcc bi bàyyi benn pàcc bi na dimbali képp ku yor moto mais nag bu ñu paree ci loolu yoon na jël ay matuwaayam. Mhm. képp kuy def transport ak taxi moom su ko mënee arrêté mu arrêté ko. Mhm. ku nekk wul ci yoon. bu ñu mënee arrêté arrêté ko nit ñi di yóbbu. waaw ñu yëpp nit ñi di mhm. yi parce que wóorul ci doomu aadama yi ñu ñuy yenn wóorul wóorul lu dul wàññi population bi du ko def waaw. Mhm. Euh, est-ce que yéen pare ngeen pour euh, dem ci tool yi euh, comme président Diomaye ni mu ko bëggee parce que dañu bëgg suqali mbay mi te gis nañu jeunes yi nanguwuñ bay mhm. ñu ngi si Jakarta di dawal ak ñoom seen est-ce que yéen pare ngeen pour dellu ci tool yi. gars pare nañ pour dellu ci tool yi. tool yi boo gisee ñi ñu dawoon seen tool yi di ñëw parce que dañ jaay doole moo fi amoon bu njëkk ba. Mhm. ñi ci dañ nekkoon seen suuf yi di bay di dundee kenn mësul xam seen coono kenn mësul xam seen i xiif mais nit ñi dañuy ñëw jógee ci àll bi ñëw ñu jaay seen suuf maam seen suuf yi dëkk jaay leen doole ba amatoon ñu dundee looloo waral nit ñi gën a daw ñëw si dëkk bi mais nag bëgg nañ delloowaat dëkk borom ñi nekk jógee ci ci ces régions seen i suuf seen i alal jàppale leen gunge leen pour ñu bay dund kondiwaa si dañu nekkoon yaakaar naa ndóol bi du yegg si waaw te jeunes yëpp yaakaar ni pare nañ bu ñu gisee lu leen liggéeyloo te ñoom xam naa ni moom vacances yi ak nawet bi ñu bëri da ngay gis ñu ne damay dem bay tàmm nañ ko. te bay wala ñu ba dañoo war a di bay noor ak nawet loolu buñ ko réussir hmm. yaakaar naa ne dinañ di gis nit di ñëw Dakar naan day wut si leen. waaw waaye dañu gis ni est-ce que métier bi am na xaalis yéen a ngi siy génn wala génnoo leen. li doon moom ni mu ni mu doon doxee bu njëkk ba ak léegi bokkatul. Hmm. parce que bu njëkk ba mën nga si génn mën nga doon daw ba génne ci ay journée vingt cinq mille trente mille man dama doon daw di génne ay cinquante mille francs par jour. par jour. waaw waaw dama ko si doon def mais fu mu toll nii mënatoo ko. ndax lan. ñi ñu dañoo dañoo gën a bari. ñi mhm. ñee bari te cag-cag ñëpp dañoo daw ñëw di toppandoo cag-cag bi. Mhm. ñuy jógee si sous région bi fépp ñëpp ñëw ne cag-cag donc nag yàq nañ liggéey yàq nañ liggéey bi ba mu yàqu yaxeet ba nga xam ne mënoo si sa bopp essence bi yokku na yokku boo xamante ne na nit ñi mënut ci seen bopp léegi nii nii nii nii barème bi fan la toll par jour comme que. léegi ñu ne pour nga pour nga gis ko am cinq mille ba dix mille francs problème la. par jour. waaw problème la mooy am nga mooy liggéey nga dëgg. dix mille francs. waaw waaw problème la kon nga kon balaa nga koy parce que essence bi moo moo moo moo moo moo jéggi mhm. moo ak concurrence nga fa métti. voilà Mouhamadou ñu ngi lay remercier bu baax a baax. waaw ñu ngi delloo njukkal bu baax ñu ñu permettre ñu mën a exprimer wax suñu soxla waaw. jërëjëf ñuy fàttali ni Mouhamadou Lamine Seck yow yaa jiite association nationale des conducteurs de moto Càq Càq. Mhm. loolu la waaw lool la waaw. jërëjëf merci beaucoup. jërëjëf merci beaucoup.